Tape www.suividecolosénégal.com À École au ko kon yow mi dem laajteel ngalawaay loo xamul lu nekk na nga loo bëggoon a xam lu nekk loo doon dégg lu nekk bi nga nekkee fii laajteel macha allah danañu la wax lu gàtt gàtt ñi fa mas a dem. te te te am ak yeewute grâce taan taan ndey ndey bu Sud FM Adja Ndeye Mboup ku ñàkk ki ñaan ku may faral di joxe exemple groupe bu whatsapp yi nga xam ni groupe bu pèlerin yi nga xam ni macha allah créé nañu ko ci bu saa yu aj gi jub see dañu koy créé du bokk sax ak groupe bu mag bi fi nekkoon comme lu mel ni Adja Aram Thiam assance boo mu yore macha allah nga xam ni pèlerin mi daf leen a ubbil ay ay ay groupe whatsapp yo xamni ba kéra ba acc tambali ba ndege ni ñu tambali leen jangal lu way xamul laaj ko lu way mënul ñu dina ko jangal ba nga man ko muy muy ko famis haj ak al al madina haj yeb aji aram cam ubbi ko ànd ak euh, jigéen ñu bax ñoo ñu mako andal ñoom aja ken jaay ñoom ajaa caane rasul ak euh, ñoom soxna euh, fatumata aja soda bar ñoom yi nga xam ku mel aja ndey mbub ak pa omar nak Nek ci biir di len won eh, ñun de waxuma la warate wii sey daa warate waye lepp lu mu la ci wax rek mën nañu la wax ci wolof indil la ci lo xamni itam man leen loolu expérience la lo xamni man dama koy soxla ñom ñu di soxla soxla jaaj yi diko soxla soxla jaaj yi itam di ko jox muy ñi massa dem dañ ni ci jëriñ lu bare bare ci ci walu waxtaan yi waye ñi masula demit dañ ñu ci jëriñ lu bare bare ndax kenn ku ci nek dana am lo yag nga laaj ko bu buñ ko xamee fa xam alhamdu dañ koy leeralante waaye buñ ko xamul daf ñuy jara ñu jóg gëstu ko ñu ànd gëstu ko di ci jëlee xam-xam yu wér te mooy fu kenn dul mokkal mukk fu kenn dul mokkal ndax waxuma la jaamu yàlla gi waaye xeetu comportement gi nga xam ne moom ngay am jaamu yàlla gi door a mën a leer door a mën a laab door a mën a tegu ci yoon rek moo xaw a jafe ndax euh, xat na euh, yaatu na lool waaye xat na ndax lu mu yaatu rek nit ña baree nañu ko lu mu yaatu rek xeeti nit ña baree nañu ko lu mu yaatu rek ñàkk déggoo làkk wa yaatoo na ko ndax xeet wu ne ngay gis làkk wu nekk ngay dégg naka noonu nag noonu la jikko yi di wuute te nekk waaye di jege ndax nekk koo xam ne déggul wolof yow déggoo làkk ba muy wax te ngeen bokk benn néeg bokk benn toilette bokk benn loolu di niroog waaj bokk di def lépp te mënu leen a fexe kenn ku nekk liyaar nga waxee ak sa morom loolu lu ko gën a metti amul lu ko gën a metti mais alhamdulilah loolu jaamu yàlla la danga nga cay gis ku dem ba njëriñ lu rëy rëy rëy génn ca ndax li taarafu ja yàlla waxoon ya yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum borom bi ne ñi gën ci yéen mooy ñi gën a ragal yàlla nit ñi def leen ay xeet ak i giir defumako pour ngeen waye di taxaro fu pour ngeen xamanté pour ngeen jappalanté pour ngeen dimbalanté kon ñi gën ci yeen dal moy ñi gëna ragal yalla fexe leen ba yobbu ak ragal yalla motax bi muy tudd ajji dafa tudd ajji rek daal di na ngeen fexé ba kuy dem màkk na nga wut yobbal ku ne xol sa morom yobbal yobbal yobbal mu ne waaw dama leen di wax nak yobbal bi gën yobbal bu ngeen bu dagal baxna de waye dafa am yobbal bu gën ci yobbal yi e yaa rabbi sunu borom lu yóbbal jógeen ci yóbbal yi mu ni inna xayra saadi taqwa fa tazawadu fexe leen ba yóbbalu fexe leen ba am sërica fexe leen ba seen dara bu fa des aj ba noppi di jëw ba la saas bu mag ba waxoon ndeysaan Ahmed Basir Kunta dem màkk doon sippi ji say bakkaar doon ña sangu ji ba set ngir suñu borom jéggal la ba nga set ba mel niñ leen di na ba keroog ba ñu la juree far nga dem di fa sëfe ay bakkaar yal nañ ci yàlla musal te nag noonu ngay sippi ji sa morom di sippi am na ku ñàkk fayda koo xam ne du nit ñi sippi musaf ko ndax du noppi ci dara lu ne yoon a ma nga ci fu mu toll ma ngay tooñ fu mu toll ma ngay ya xeelu nit ñi fu mu toll ma ngay ya wax ci seen ginnaaw dëkk ak nit ki mbaa nga bokk ak moom benn néeg bi te lu ne nga xool ko ci moom bu dëddee lu ne nga wax ko ci moom ah loolu day doy waar amal fayda waaye sa ëmb bi fexeel ba bu mu bënd ak a tuuru tuyaaba ji nga jàpp ne moom nga fa ëmbee fexeel ba bu ko tuur mukk mukk mukk mukk te sa mbuus mii lijjantil ba bu ci yeb bàkkaari nit ñi lañu summi ko raxasu bàyyil sunu borom tabaraka wa taala soppi ko ay yiw waye bo lijeenté yow ba fabal ko sa bop musiba nga fab li nit ñi summi bul ko jël bakari nit ñi soti borom bi dom dom dom moko mëna jël nu mucc ndax mom suko jëlé néna ulaika na yubadilu laahu borom bi moy soppi ñaawte fi def ko moy ay rafet rafet ni da nga aj ba nopi lu ñaaw lu mu def borom bi soppi ko ba mu rafet mo moo dàq recycler ñëpp sotti ko ci jox ko ko motale ko ko mu dolli ko ko ci tuyaaba yi ko yalla defal ci aji ci njéggal gi ko yalla defal ci aji motax fo tax di ñaan njéggal borom bu la jegalé rek toj toj yi nga defoon musiba yoyu nga tiit di jégglu rek yoy yep da koy soppi ba mu rafet du ko sanni mu ngay perte yubaddilu laahu sayiatihim hasanat borom bi ñooñu ñi tu te def ko ne xalu safara wuñ joggi won sen tank dootu ko tay mukk de ko ca delloo def ko ni lu ñu wacc woon dootuñu ko naan doo leen seenati ci yiwari do leen ci deg dootuñu wax luñu xamul dootuñu dem fuñu waru la dem dootuñu jël luñu momul dootuñu par parlo ci lo xamni ni jaaduwul te fekk na ñoko tay lañuy wax bokku la ci seen lamiñ bokku la ci seen xol yoy yépp ñu summiku ca génn ca ba set ñaan borom bi tabaaraku wa taala mu jéggal leen ko borom bi ne suma leen ko jéggalé ba paré duma ko tuur ndax liñ ci def bari na liñ ci perdre temps bare na kon numa koy def dama koy recycler dama koy soppi bu mu rafet ma doli ko ci rafet yi ñuy def tay ulaika yubaddilu lahu sayiatihim hasanat waaye yow nak bo jëkkantee ba lu way summi bala ko borom bi di soppi muy lu rafet yow nga ne roset ni ca ciopet na ndax yalla ya mak ndax yalla ya xeyna makka ji de xeyna ndax mu tuube ah am ñew na julli ci de ma ne nekk nañ ci mu mukarama nekk ci madinatul munawara ñu gis maa ngi gis jigéen ju baax macha allah fu mu toll bu sëg ngàbbul kurusam gii bu ngàbbul kurusam gii mu ngi jóg dinaa fi noonu la nekkee ñun Medinatul Munawara di jëkkante naan ah man de damaa bëgg a kër goo tax nee nañu am juróom fukki julli nangam te gëmuma ne fii danañu fi am juróom fan danañ def nangam ak nangam ma ne ko soxna si loo fi am baax na fa nga jëm fa la julli ya ëppee ñaanal yàlla kay yàlla nangu julli yi lu nu fi julli yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla nangul taqabbalallahu minna wa minkum mu ne amin ma ne ko ñaari rakk yoo fi julli ak ñeenti rakk yoo fi julli julli juróom goo fi julli borom bi tabaraka wa taala nee la julli goo fi julli fay naa la ko dafay defal naa la ko fukki junni julli mu ne ha ma ne ko macha allah alhamdulilah soxna si bu bu ngàbbul kurusam gi toog mi ngi naa fi la waaye ndeysaan jigéen ju mel ni am say faal daal moo koy ba yàgg mu ah du na julleem gu bari jiyee xam naa la mu def yàlla de moo ko xam kenn wuyu ko ca ñu bàyyi noonu kenn ku nekk ne ca la la ñor jéem a xool sa digganteeg yàlla yow ak la ngay def mu jekki jekki benen bés mu répété ko mané ko soxna diw ah, mané ko lol du ay wax nit ku nek alquran nee na balil insanu ala nafsihi basira nit ku nekk ya gëna xam sa bop waye fis nga fi mu nekk danoo am xarit bu nu bàyyi senegal ndeysaan bo mu ngi dund yalla ko yàlla mu na man ko danoo am xarit bu nane alfa Alpha mu nek won ak ñun ci radio Dunia daf daan wax ni mm, ko xey tambale ci sa bop ngon dana jot do yex ci say tank gis nga kenn ku ne la nga def yàlla yaa ko xam mu naa ko moom mi nga naan la mo def yàlla moo ko xam ba tax mu dëkkee julli mu ya ko da koo war yàlla moo ko santaane aqimu salaat la yàlla wax yow nag bu fekkee mën nga loola fa lilaay alhamdu lu baax la boo ko mënul fa lilaay alhamdu defal la nga man bu fekkee mënoo dara it mu naa nga féete woo noppi te bàyyi deru jàmbur fii kat ku fi ñëw di jullee ka wirde ka jàng alquran mu naa ko yaa ngay jéggalu borom bi di ko ñaan mu yokk la ay yiw kon nag dañuy ñaan yàlla na ko yàlla nangu te it borom bi ku mu jéggal ku nekk mu naa ma ne ko say ñaawteef dina ko soppi def ko muy lu rafet mu jox la ko kon nag jaam warul ñàkk fayda wala muy yàkkamti ba yu yu bonam yu rot yu bon yu moroomam rotal mu di ko for denc fi mu ne kenn ku ne lu bees peq lu baax lu rëy nga war a wër loo sol ci sa mbuus yóbbaale waaye day ah alhamdulilah xaw ma ma nga ca xolam yàlla rek xam xel yàlla xam xol waaye keroog nag moom la gëjëtee wax wax dëgg yàlla wax ju demee noonu yal na yàlla boole ñu jéggal jéggal ko jéggal mboolem julit waaye dafa am loo xam ne yóbbuwunu fa foo xam ne kañ laa fa masa kañ laa fa masa dem ak kañ laa fa deeti jëm ak kañ laa fi gëj a ñëw ak kañ laa fi deeti ñëw ay waaye nga la waaye góorgóorlu nga profité profité ci lii foo xam ne koo fi ñaanal yàlla nangu ko soxla bu la nit ma sa wax bo manatul jaar ci soxla sa fatte nga ko neel ah yàlla diw de yalla nang ko fajal aajo ay eh, ya rabbi diw yalla nang ko fajal aajo ay eh, ya rabbi diw yalla nang ko fajal aajo glim sa aajoy bopp saxoo baat bi matale nga xamne matale na adina ak alakhirah moy allahumma rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban naar mooy baat bo xamne mo moo adina ak alakhirah mooy yiwu àddina ak yiwu àllaaxira ku ko xasa am matal matal nga ku ko xasa am matal nga yow mi ñaan yiw nag di ñaan yàlla nangul la sa jaamu gii nga la waaye def ci sa fulaak ak sa fayda te te bàyyi xel lool ci sa wàllu set ba nga xam ne ko dë koo nekk la koo dendal doo ko lor koo dendal doo ko lor yaa ngi bokk ak nit néeg waaye xamoo waxtu woy wax xamoo waxtu woy wax ndànk xamoo waxtu wooy yëngal dara xama waxtu way xatan xatangé say kayit li nu tam ci sunu neeg yi xane sama classe nga xamne mën nañu yor seen permis ya ba di di di xoton xotangi ba ko teudal la jël ko ah wax deug yalla ko armal ak kuy bëgg armal de war nga mëna moytu lolu lo indi man nga ko téla tek boko tege mba arranger woko ba nit ñi nelaw bayil bul yëngalati dara lu am na xamni xam ne bu ñu xasee ba gëm buñ neetee xefeet xañ nga leen ay nelaw wéré cekk nañu dootu ñu ne ba ëlëk ñuy kayen kayen nga yóbbe len coono wala bop yu metti lool yépp ya ngay fàggu ay bakkar nit ñi fexe nu ñu faxasoog nu ñu raxasoog nu ñu sango yow ngay dajalé ay bakkar di ëmb té bakkar di su ko xeeb de sallallahu alayhi wasallam nee na bàkkaar borom ak ke nur di ko def te di ko heb musiba la du ci mukk way nee bakkar du reuy mukk feeg boromam ko di ko réccu di ko diko di ko baalu su boobaa bàkkaar réetu borom bi nee dina jéggalé ñi def yu bakkar yu sew yi feeg ñi ngi moytu bakkar yu mag yi yu sew yi rëcc rëcc yi ilal la mama dinaa leen jéggal yi nga xam ne dañu ko def leen rëcc yu sew sew yooyu di yi ñu rëcceeg yu ñu fàtteeg yi nga xam ne tayu ñu ko nangam ak nangam feek ñu ngay moytu bakkar yu mag yi ya. waaye yow boole lépp di bee mbaxle rek te di ko def ci birëb te bakkar dana gën a rëyee ci birëb ba nga ko defee am na wax joo xam ne ak jëf yoo xam ne boo ko defoon ci Sénégal gii bakkaar bañ la cay bindal bul yaakaar ni yàlla dafa denc bàkkaar bu mu lay dolli boo ko defee màkk ba tax nga ne ah yàlla kay nee nañu amul lu bon kon nag lii su ma ko defee màkk it nag bàkkaar boobu la ma yàlla di bindal waaye du yokk bàkkaar ba déedéet amul bàkkaar bu mu lay yokkal de dencul bàkkaar di la ko yokkal xam nga lu mu lay def dafa am foo xam ne alamaan yañ lay teg mooy gën a metti mbaa duma yañu lay teg boo defoon tey dara ñun la dañu koy tere fii ci senegal waaye nga def ko fii ci Sénégal duma yañ la cay duma boo ko defee ca màkk duma yañ lay duma moo gën a rëy loolu lay tekki waaye du caage ne yàlla dafay denc bàkkaar yu bare nga def ko mu def la bàkkaar bu ndaw nga dem màkk def ko fa mu jox la bàkkaar bu mag déedéet duma yàlla lañ lay wax bàkkaar bi fa nga ko defee ba nga ko defee dafa rëy loo dafa rëy béréb baa moo tax boo ko fa defee duma yee la ca war duma yeñ la ca war a duma moo magee lool moo magee lool yàlla nañ ca yàlla musal yal ñu taseeg yërmande yàlla ji nga xam ne moo fa nekk te suñu maam ya liggéeyoon ko fa ku mel ne soxna suñu wax suñu maam xaajara xel yu metti ya mu fa dawoon ndax doomam ju marja ba mu daw safa ak marwa ba def ko juróom ñaari yoon borom bi tabaraka wa taala bett ko xéewal yébal jibril mu gëdda tànkam ba ci li gën a siiw gëdda tànkam bi ci suuf si ndox mi bal soxna si daw dikk tiim gone gi ndox mi di walwali mu naan ko zëm zëm dalal dalal dalal dalal ndox ma di dal ndox ma di dal mu di ko jéem a yemale di ko fe di ko di di ko fuugat di ko yemale ba ndox ma nekk benn place di teen bu yéeme ci àddina boo xam ne benn teen kese ci àddina di ten bo xamne bañu ko bamu mu ba mu fattee ba yàlla joxe ndigal ci lu yéeme ci ci ci abdul mutalib bañu ñu fettali teen boobu ba ndéganis ci moy ten bu laq junni at ak nangam yo xam ma sha allah ma ngay walwali bis bu nek ndox ma gëna bari waye ken mënu ko canaliser mu jëm fenn fudul fi haram fi fi jumaaji yam haram màkk yaatu lepp bu fekkoon ni jumaa ji dañuy continuer di yaatal di tabax jumaa ji di tabax jumaa ji ba jarwal di tabax jumaa ji ba tanim ta muy benn juma fu jumaa ji yegg rek doxum sam-sam dafa yegg waye ndox mi du genn jumaa ji kër waay yi nga xamni ño gëna jëgé a jege jumaa ji ba def ko ci ay raakool ba mu ba ba def ko ay robiné ba mu genn mu ko dugg genn genn haram du genn jumaaji ji ci kër kenn du aju ci kër kenn du wacc ci kër kenn sam-sam daana nga fa mu ne waaye sunu borom daal bis mu nekk mu di ko dolli mu gën a bari xoolal li ñu ciy sëf ci ay conteneur yi eh, eh, sérikaani ndox yi kii glacière di ko sol di ko sol ay junniy junniy ñu di ko soli ndox junniy junniy bari ko ñu di ko sol def ko ci ay conteneur muy wéy di yóbbu Madina di yóbbu feneen macha allah ci Saudi biir Saudi te kenn du bi mësul dégg ñu ne sam dafa dëy te jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono maamam Abdul Mutalib ba fii ñu koy waxe kenn déggagul ñu ne sam-sam dafa dee te lépp di kéemaanu yàlla gu mu defal jigéen joo xam ni toog na topp ndigali kilifaam topp ndigalu borom këram uuf njabootam ba borom bette ko fa xéewal googee tey suñu maam Ibrahima taxaw naan ñaanal ko ñaanam gi mu ko ñaan lool xeet wépp bokk ko tey rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin xayri si samin inda baytika almuharram rabbana li yuqimu salaata fajal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warsuqhum min athamarati laallahum yashkurun yow mi yàlla defal lii dem taxaw ci béréb bi jigéen ji keroog ba muy wan doomam ji ginnaaw di yéeg montagne safaa booba safaa ngi kawe woon dafay gën di wàññeeku dañu koy xeet di ko wàññi di ko xetti di ko di ko di ko wàññi di ko xoos ba nit ñi mën koo yëg ni ci yëggu yomb gi ginaaw gi ginnaaw Ibrahima hmm, jaamukati xërëm yi bañ fa bare yax nañ alquran ñëwee la ñu jox woowatul waaye Quraysh ñi ngi ko tudde woon ñaari nit ñoo xam ni eh, dañoo wax ni ñoom lañu soppi woon ñaari xeer yooyu dañoo moyoon yàlla ñu soppi loon ñaari xeer yooyu ñaari montagne yooyu ñaari montagne yi benn baa ngi tuddoon asaaf benn bi tudd nailata waaye borom bi tabaraka wa moo ñu ñëw addu ci alquran ni inna safa wal marwata min saairillah fa man xajjal bayta aw ictamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawaa xayran fa inna allaha shakirun borom bi nee ku coogarewu nag safa ak marwa daal jaamukaayu yàlla lañu yoo xam ni képp ko aj si néeg bii war nga leen a jaabante juróom-ñaari yoon yooyu mbaa nga umra si léegi nag bu dul boo aj ba noppi ba def ko mbaa nga si ba noppi ba def ko léegi nag saa yoo coogaree wootee xam ne tey jii kat damaa ñëw rek pour naafi la ni ma amee soxla ci kaaba gi rek ñëw tawaaf ba doyal daal di toog noppalu toog di jàng alquran wala ma waxtu julli jot ñu noddu ma julli naka noonu it nga amee droit coogarewu dem coogarewu dem def de daal di daal di volontaire dem ni négal ma dem def safa ak marwa te ñëw moo xam ñaari yoon nga ko mën a def moo xam ñetti yoon nga ko mën a def nga dem moo xam it juróom-ñaari yoon nga ko mën a def ndax borom bi nee na képp ku coogareewu def ko day ku volontaire def ko it yàlla moom kuy fay la te ku lay sant ku ku mooy buuru santaakoon bi te itam mooy buur bi nga xam ne moo xam lépp fa inna laha buur bi tabaraka wa taala mooy may lépp mooy mooy buur bi ñuy sant mooy buur bi joxe xéewal yi mooy buur bi yooyu ngërëm li xamante tawaa xayran fa inna allaha shakirun bi daal mooy buur bi sant bi mooy buur bi ñuy sant mooy yooyu cant ki shakir la tey ko xam lépp la biir biti ki ñëw dinaa fi lesi lii ngay génn taal xëy taalal say tànk ne ah maa ngi màkka naa xëy dox jëm ba birab sàngam naa xëy dox ba dem ba birab sàngam ah lieu ngay dox na talal tànk yi tàllal tànk bi waaxu si ba ci kaaba gi nga tawaf bu dee benn wala ñaar wala ñett nga dem nag ne xaaral ma dem def safa ak marwa negal ma dem def ko coogareewu def ko walanteeru def ko da xaar ci fayub yàlla te loolu yépp bur ba tabaraka wa taala mi ko doore woon ci soxna su soosu nekkoon ak njabootam foofu toog fa xaar ndigalu borom këram xaar fa ni ndénkaaneel yàlla ko def mu ne ko yàlla du sànk ndénkaanam kon yow boo ñëwee demal nga defi safa ak marwa gi waaye demal nga góorgóorlu bu fa jee bu fa gaañ kenn fexeel ba moytu itam bu la kenn gaañ ndax am na ruq soo xam diggante soo xam ne ñaari mbedd yi dañu ko seq ñu def ko menn mbedd moo xam ne pour puus puus yi lañ fi war a jaarale ñi nga xam ni dañoo mënul ba ñu teg leen ci puus-puus kenn bëggu leen a jaarale ci biir nit ñi dañ leen créer benn yoon ci digg ñetti ñeen ñetti yoon la ñu ko def ñu yoon ci wet gi yoon ci wet gi ñu miire benn yoon bu ndaw boo xam ne borom puus-puus yi ci toppante di puus di waaxu nga xam ne ki leen di puus moom am na doolay waaxu mën naa waaxu dem bu ko defee ñoom ñu wutal leen yoon woowu waaye da ngay gis koo xam ni xëy na moom ab doxam gaawul waaye bëgg na lu nooy bëgg lu noppali fii nit ñi jaar jaaru fi xanaa mu jaar ci yoon su wér soosu nga xam ni borom puus-puus yi dañuy mujj am ci ñoo xam ne ñu ñàkki teggin lañu ku ñu romb ku ñu fekk ci yoon woowu dañ naan rës dal ci sa kaw waaye loolu yëpp nga éviter ko yow mooy deel dox bu fekkee mënoo faa ñàkk jaar te wóor na leen yow am nga gaaw jaar fa te te te doo lor kenn bu fa xoolee itam nag ba di fa loru booy boo dëkkee wiil wiil rek de booy boo dëkkee gestu de di waaxu di fa jaar booy boo dëkkee gestu te te te say tànk sawar lool nag ndax ñi lee macha allah ñee di daw di ñëw ki ñu teg ci pus-pus bi ña ngay daw moom seen ñu ñu sawar lañu macha allah te gaaw te faale wu ñu dara faale wu ñu kenn dañ naan fi seenu yoon la ñoom pus-pus yi moo tax danga ciy bàyyi xel ci yu noonu. ak nako noonu ñew julli ba nga jige hajarul aswad di tawaf ba tolo hajarul aswad yalla def taxawal julli jot ñu nodd nit ñi taxaw tàmbalee julli nga dal di gis eh, ñi nga xamni rek la yalla xam doy na bir bo dem rek fek fa ñam di sàngam ñu dal di lay aj ajal ni la acc fi mom do fi mën taxaw yow do fi julli mel yow da nga dul nit wala lew li nga la tax ñu bëgg laa dàq fii nodd nañu taxawal nañu julli gi ñepp taxaw nañu yow ñu gis ne dangaa jege hajarul aswad ñu dilal jema pous dilal jema di fi do fi julle ah man de bañ mako defé neex na te jeexul yalla bo lew ma ci sama wax de dama kàbbar julli rek mu ne ti ma jógal ñima andal ñepp man leen kàbbar leen moo munu de ba dinu téré fi ñu kàbbar mu ne jog leen mané ko la akifu fihi wal badi gis nga fii alquran nee na ñëpp a fi yem ñi soreek ñi jege ñëpp a fi yem néeg bii néegu yàlla la te yàlla bëggul ko fiy tooñ te ku fiy tooñ sax yàlla nee na ku ñu fi tooñ sax bu la neexee fayu nag li ma bëggoon nag mooy nga banu tuur tranquille ndax mënoonoo génne jàkka ji jóg bu fekkoon dañu fee def délité ji ba nga war noo génnee sax di nga ba nit ñu seulement ndax amuñu fu nu jaar ba génn jàkka ji jóg leen nag fii du ngeen fi jullee loolu mooy génn leen li nga li nga nu xoolee ba yàpp nu ba di nu génnee fii nag laa bëggoon a xool ndax der bi la wala lu mu doon rek ma xamal la ni fii du kër baayu kenn imaam bi nga xam ne moo taxaw daal di war a jiite tàkkusaan ji imaam ak ñi ko dar daal ko ne jàkk ba mu ko mu woo ko mu wuyu mu ne ko xali ni sa baal jigéen ñi soxna Marème Fall bu so mi ma ah imaam baa nga ma ne ko ah imaam tudd de ma ne booy boo ne ci li nga nekk rek de man di dégg na li ma ko wax nee naa ko fii daal ku ñu fi tooñ sax bu la neexee fayu fii nag moom moo ko sa bàyyi moom ko wax dëgg yàlla yàllaa ko moom te nee na ñëpp a fi yam ki sore ki jege fi mu nekk nag bala moo lijjanti ba ma wax ko fa ma jóge dana ko tàyyi li ma fi indi daal moom laay wax ak moom te ci laa nekk man maa ngi ci li ma fi indi mooy tawaaf ak julli daal moo ma indi ci kaaba gi leneen lu ma fi bëgg a def loo duma ko ko may yàlla nag suturaal na ma ba imaam bi dégg na li may wax ak moom imaam a koy fem waaye yow de imaam jotewul ak nun daara nag soxna si ah damaa gis muy wax rek dama xool di ko xool ma ne ko looloo tax ma ne la waxul ak nun nee na ko baal jigéen ñi dégg nga baat boobu mu ma ne ko ne xali ni sa baal jigéen ñi <laughs> jigéen ñi waaye dafa am yu doy waar yoo xam ne dafay nekk ci biir yoo xam ne boo ko bàyyiwul xel ni négal ma bu xanteeg dem ak sama doole wala man de kii nga xam ne mi ngi nii moom bi ma ni ma ko séenee muy ñëw xam naa ne nii muy engagé négal ma itam ma fekk ko ci loolu ñii dañoo soxor ku leen jege dañ lay concowu seen conco lañ lay bumax dañuy ar aral di ar aral wallaay dañ leen di tooñ sax naan dañuy wuuf seen dañuy wuuf seen soxna ba euh, ba ba ba di bañ ku ko laal ci giiwet wala ku ko laal ci giiwet seen conco yi lañuy lañuy la ñuy défendre waaye da nga ciy gis ñoo xam ne wallaahi wa rabbil kaaba ànduñoog seen soxna seeni moroom la ñu àndal di dem waaye seen conco yi daal ndeyjoor ak càmmoñ la ñu koy boole di bu di bu di ba ma ku mu dal fu mu la dal seen yoon nekku ci kenn xamul luy loolu waaye yow mi dib jullit góor-góorlu ba mucc ci loolu laa darara wala dirara góor-góorlu ba bu ko def yow waaye nag na nga góor-góorlu itam nag bàyyi sa xel bu baax a baax a baax wattu sa bopp ba itam nag kenn du la ko def mbaa ka koy defaate bu ko defee du dal ci fenn ci sa xol bii wala ci sa dënn bii wala ci sa fàmb yi fu mu lay méttee del bàyyi xel koo dendal rek moo xam ci ndeyjooram nga nekk wala ci càmmoñam nga nekk wala ci ginnaawam nga nekk dee ko bàyyi xel boo gisee muy doxali ci façon doxalin woowu nga teel ko mën a diggi romb ko dem wala nga arrière ba mu sore la yow nga door a mën a continuer ndax loolu yëpp dafa bokk ci jàmm yàlla gi dafa bokk ci jàmm yàlla gi moytu sa bopp sàmm sa bopp fexe ba doo def kenn lu bon waaye nga lu itam nag aar sa bopp ba kenn du la def yendi yi ba mu mën a yegg si ci yow loolu yëpp ci jaamu yàlla bi la bokk waxtu wi nga tawaafee nekkoo ci jàkka ji tawaaf nga ba noppi julli nga ba noppi dellu nga sa hôtel toog ay waay toogal si biir hôtel ñépp fa nekk nag lu nekk nga fa lu nekk nga fa sénégalais yi am na ci ñoo xam ni day mujj nga di leen arrangé xale yu ndaw yooyu nga xam ni dégguñu wolof jànq jooju nga xam ne ak ak xale yu góor yooyu nga xam ne dañoo ñëw di toppatoo setuk hôtel bi yow sa yoon nekkul ci ñoom bu ñu defee li leen war nga xam ni taxawu nañu set gi ni mu waree fi ñu war a setal fa lilaay alhamdu boo amee loo leen baaxee sax ci teraanga baaxe leen ko te yàlla tax bu fekkee defuñu ko te mën nga koo def baax na bu fekkee mënoo koo def te loo war a yëkkati la jàmbat la loo war a jàmbat demal ci seen kilifa demal ci kilifa hotel bi hôtel bu nek amna ku ko yilif ku fa nek ko xamne moy responsable ba te mo responsable ñooñu nga xamne ñoo taxaw di yore cetu cetu hotel bi te bo fexé ba lu ba japp ne hotel bi yow dong mu ya ko wara setal sa yon dort nek ci kiñu fay pour mu ñew fi diko setal waxatuma laag na lu mu setal nga tilimal lu nit ñi setal lu ne nga ñoo taxaw ko lo nga sànni loo xolit woo xam ne wóor na ne xolit bi doo ko sànni sa kër nga sànni ko ci hôtel bi moo xam sa buntu nekk nga ko sànni moo xam looluy niroog waan nga ko sànni ci bi ngay si moo xam danga dugg sa toilette nga sangu ba pare wàcc mu tooy sa moroom war a dugg sangu mu tooy toilette yow kenn yaa yoroon sa toilette nekk sa kër macha allah mu wow koŋ waxtu wu ne yaa ngi sa ñaari morso yaa ngi sa ñetti morso fomp mu wo mel ni la neex tay nga dem fo xam ni na ñepp la ñëpp ak ñëpp ko bokk gor gorul ba bo bo duggé yow ñepp yàkkamtee top ci sa gannaaw gor gorul ba bo demagul ñepp yàkkamti nga dem ci toilette bi ndax gaaw go fay gaaw joggé def li ngay def euh, euh, fa sa soxla dem ak bo fay joggé itam defar ko ba mel na mu war mel ba tabarakallah kenn ku nekk sawar fa dem fa ci soxla waye nak ne tay wi ba nak dañ ka bokk toilette yi dañu ko bokk suñu xaalis lañu fay nangam ak nangam damaa fay ñu fay benn jeeg ëppale wu ma fi lu mu cotisé nangam toilette bi bu fi diw bu xam ne bu fi duggee du fi génn di fi duggee da ko tooyal nangam. sama doom nee na ma yaay yaa ma napp ba may dem màkk ba ma sonn lool ci toilette yi ndax yaa ni woon pour tooyal douche bi sax boo ko waxee mën ngaa ñàkk ko aj ma ne ko waaw ak nan koy waxee <laughs> luy sa yoon ci ku ko tooyal yow fexeel ba bu ko tooyal te ku ko tooyal boo duggee yow na ko fomp ba mu defaral ba fépp ku ko taqal boo duggee setalal te yow góorgóorlu ba bul taqal mukk mën ngaa fexe ba doo taq ndax fu yomb ba defar la macha allah am na matériel yu ñu koy defaree ba pare ndox ma doy na sëkk te ndox rek doy nag set ndox mu doy sëkk doy na setuk fépp ku góorgóorlu rek daa ci mën set te daa mën a setal nit ñi itam nag am ci tuyaaba waaye mel melokaan woo xam ne kenn ku teg bagaasam ku ne mi ngi lay xeelu ak di la muslu naan ah dafa sob de moom de loo yor koy jéem a xam moom de lu ne dina ko dina la ko laaj bari laaj baaxul sallallahu alayhi nee na woon xiila wa qaal wa kasratul su'aal nee na nee naay dégg naa ñu ne nee na ak bari looy laajte baaxul ci diine ji baaxul dina dafa ŋàññi ko mel noonu gur nga japp sa njàmbur ci lu bare bare bare waye nek ci nek bi fexé ba waa nek bi ragal la li di way sa bi doon wax ko xamni lu ne ngay wax ñu bare dañ lay ragal waye bu fekke ni ku genn rek nga tuddu ko day mujj ñepp kenn ku nek nak bàyyi la xel ku ne ah kon kat xamna man tam suma bo sagane suma genné ni lamay amé la ci nit ñi mooy yeen yéen ko nga nangam ak nangam bul gis kenn gisal sa bop bul ta kenn talal sa bop na bes tay gi lu ñuy def ñu la tay bi nga ñëwee loo defoon nga ne nangam ñun la yow gan aj nga defoon nga ne ah xamatuma sax man kat aj la ñun la waaw luñ la waxoon ak ba ngay armal ci Médine luñ la waxoon nga wax ko nga ne waxoon naa nangam ñun la kon nangam moo la dese yow nangam nga war a def yooyu moo war a nekk sa yitte eh, kon kon léegi ci lu ñu toll ñun la léegi bi sàngam la ñuy dem mun a bu dee da ngaa summeeku la yow bi sàngam da ngay armalaat tàbbi ci aj ji bu fekkee summeeku woon ñun la ah yow kat dangaa boole aj ak umra waaye nag lii nga def jaaduwul yow da nga boole ajak umra ken tere wala nga ah, eh, eh, sa armal bi ñaata armal nga fi indi nga ne indi woon ñaar wala indi woon naa ñu la kun kay lu la xeet ci witi limi yi nga ne ah man ka dañu ko armal da ngay do summi sa armal ak sango ak nangam ñu ne déet ku la ko wax da lay nax ku la ne do sango da lay nax do sango saabu bu neex lañ la wax do fab sa armal bi di ko sa saabu bu neex waye sa armal bi kay bu tilimee fot ko nga sol benen ginaaw yow da nga ajak umra sa sañu summi sa armal bi benn yoon wala yow da ngaa def aju kese sañoo su mi sa armal bi benn yoon waaye kenn terewu la nag mu set kenn santu la nag sax nag tilim gii muy tilim moo jaaduwul lislaam buggul tilim sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon an nasaafatu min al iman aw kama qaal set dafa bokk ci ngëm yàlla jaanatul kër ba sonn mën nga jàng léegi te doo doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi mu gën la ici au Sénégal. Tu peux facilement avoir accès à École au Sénégal.